Salam alaikum wa auditeur radio FM la 104.9 man la Serigne Tafsir di de la communication et de l'ordre et de la discipline ak monsieur Babacar Diop di adjoint directeur chargé des relations extérieures et en même temps professeur de maths bu école bi ñuy Elite School nekk Moussa.

taxawaay yi mu amal ngir safara yooyu jafe-jafe ak yeneen i poñ yoo xam ne dinañ ko fa yaatal émission bi ñu ngi ko bëgg a amal àllarba 7 août 2024 boo ci bëggee bokk mën nga woote ci 78 426 86 30 ma baamuwaat ko 78 426 86 30 wala nga teewluñu ci plateforme digitale Waarwi FM wala Koma TV wala Lumière Pro di leen jox dig daje àllarba 16h à 18h incha allah. mama bye